sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di siyaar bu baax ci tur waa Tazawudu Sixaar fondation bi nga xam ne ñuy ànd di liggéeyal ngir jëmi sëriñ Touba noo ngi lay sant ci turu mbooloo mi ak seeni jëwriñ mën nañoo bañ a lim ndax kenn ku ci nekk daa taxaw taxawaayu jëwriñ ñi nga xam ne ñoo jiitu. daanaka danoo maase tolluwaay ak bëgg ci ñun jiitu ci ñun jiite moo waral day mel ni li ñuy tudde jiit mu woyof toll ci ñu jiitu ci turu maam Maxtaar Mbaay mii nga xam ne moo ànd ak sëriñ Jaga sëriñ ma Silla sëriñ Fàllu Mbaay mii ak sëriñ Fàllu Silla ak ñu deme ne ñoom ñooñu day mel ni ñoom lañuy ñuy tuddee ay jëwrin ci liggéey bi waaye nag daa woyof toll ci ñoom ndax ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi dañoo xam fi ñu leen jëmale ak liñ leen yéene ak liñ bëgg ci ñoom ku lay woo ci liggéeyal sëriñ Touba ak di fexe sa àddi jóg di jëm ci liggéeyu Serigne Touba yaakaar naa boo xamee dara danga ko war a fay moom ma la cay soññ kon yaakaar naa liggéey bi woyof na toll ci ñoom kenn ku ci nekk liñ ciy jëf ànd nga ci xol bu sedd bala ñu la koo laaj mën nga koo joxe ngir yéene akuk bëgg ba noppi ci dabu ngërëmul sëriñ bi ak mbégam kon loolu yaakaar naa woyof na ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñoo ngi feddali nag seen kóllëre di yeesal seenu jaayante di yeesal seenu bëgg ci sa jëmm ji ngir jëmmi sëriñ Saliou mbakk ngir jëmi sëriñ Touba ni ñu koy woon daaw waxe ko daaw jéeg waxe ko at yële paase rek la ñuy baamuwaat kenn ku ci nekk ci ñoom ñii li mu yéene ci liggéeyal la xelam lim ciy daw jëmam àggagu fa wërsëgam it àggagu fa yéeneem it rëy na lool waaye ñi ngi ñaan ci barkeb jëmmi ki ñuy liggéeyal nga ñaanal leen ba kenn ku ci nekk ni yéeneem rëyee ci liggéeyal Serigne tubaa man-manam ak kattanam ak xam-xamam tolloog loolu ba mën a jëf dëgg dëgg liggéeyal Serigne Touba ci liggéey bi te rafet nañ ci njort bu baax a baax ma waral jamono bu ci nekk. noo ngi lay sant di la gërëm di la sagoo di la ñaanal fu ñu toll ndax yaa ngi ci seen biir jógu ci benn yoon liggéeyal sëriñ Saliou jaare ko ci sa jëmm ji rek ab sag ngir ni nga way fa toll ci suñ jëmm yii te mënoon a doxee na neen du tee nag ñuy doxee noonu te du tee ñi wut ngërëmul yàlla ak lu mu métti métti waaye ñu ko yombalal kon nag ñu ngi ñaan ci barkib sëriñ Touba li nga xamee ne loolu wolof naan ku la lebal bor boo mënta fay da ngay def loo am joxe kala lebal xam ne am nga yéene fay donte mënoo ko moo ñu dal ci liggéey Serigne Touba ubbil nga ñu aw yoon to toqi nga ñu ci toqantal nga ñu ci wan nga ñu ko leer na ci ñu naññ dox jëm ci rekk ci des kon mbooloo mépp ñu ngi lay sant di la gërëm kon ñoo ngi lay ñaanal yàlla sun borom gën la yàggal te wéral la ba li ñu yéenee liggéey lépp nu man koo defee ni nu ko yéenee te ànd koog yow te dara bañ a manqué kenn bañ a manqué ginnaaw bu loolu jàll it la nga ñu digaloon ña nga ci góor góorlu suñu kemtulay kattan loolu nag manis na koo booleeg waxi sëñ bi li nga xam ne moom la am yéene jottali leen ko mu nekk genn kàddu ndax ñun kat gis sëriñ bi ak mu yónnee ci ñun ak mu ñaanal ñu ak ñu ñàkk koo gis moom lañ yemale ci suñu pas-pas ci moom ngir xam nañ lim ñu yéene bu yónnee ñu gis njariñ bu ñu ñaanalee ñu gis njariñ bu yëgee sunu bëgg ñu gis njariñ su ñu joxee ndigal ñu gis njariñ suñu gisee ñu gis njariñ suñu gisee ñu gis njariñ lool nag tawfeex ju am suñu diggante ak moom la te jamono bu ci nekk ñun ñii ñi nga xam ne ñooy jàng ak ñi nga xam ne ñooy yaxantu ak ñi nga xam ne ñooy jàng mécc ak ñi xam ne ñoo nekk ci seen roni waajur ndax tasawuru si xaar yaakaar naa kuréelu xale la waaye nag mi ngi bëgg mi ngi bëgg a bëri nag ay ay kibaar waaye nag ñi nga xam ne ñun ñoo jiitu ñuy toqi xale yi nga xam ne ñoo jëm ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi di leen ko wan ndax moom kat digaloon nañu fii ne sëriñ Saliou kat ku koy liggéeyal war ngaa gëstu ay mbiram te nam nekkee woon nga dëppale ko la mu dana yombal liggéey bi ngay liggéey ba nga mën a jot ci njariñ yi te moom it xolam dana sedd mën a jot ci njariñ ndax mënoo koo ñaanal di ko sant di ko jaajëfal di nekk ci mbigam ne moom ngay dakk ak ngërëmam ba noppi nag di wuuteeg euh, bëgg-bëggam jafe-jafe day daal di am. léegi nag bu ñu jàngee sëriñ bi ba xam ko lépp lu ñuy def rek danañ ko méngale ak bëggam te loolu yaakaar naa ñi ngi ci kon nag waxoon na fii daaw ne nañu góorgóorlu baax a baax a baax ci topp wayjur yi loolu nañu ko bàyyi xel ndax nit kat su bëggee sangewu ci ab sëriñam ba jot ngërëmam day topp ay kilifaam ndax topp ay kilifa mooy yombal ngërëmul sëriñ bi loolu nee na mi ngi leen ciy soññ baax a baax bu kenn jooyal ak sa wajur ci seen bëgg ci liñ lay digal kenn ku ci nekk it fa nga nekk ngay góor-góor ci jaamu yàlla te bañ ko woyofal waxtu wu julli jotee ñu jóg defi ko te bañ koo booleeg dara te xam ne farata la ci ñun lépp luñ mën ci jàng xasida it waxoon na daaw ne nañu koy def di jàng xasida luñ ca man ci ak mokkal di ko yëkkati ñu koy def ndax dana gën a dëgëral kuréel bii te dana ko gën a gën dana ko gën a taaral kon mi ngi leen ci soññ bu baax a baax xam-xam it waxoon na ne ku amug wayaf na ko ciy boole waale ndax xam moom dana la gunge lool ci àdduna ndax bëri na ñoo xam ne sànku nan ba réer ba sonn lool ci àdduna ji ñu nekk te ñàkk xam képp lañ ko yóbbee ku xam nag bu la yàlla dimbali nga gindee ko kon nag nañuy góorgóorlu ci jéem a xam suñu mbir diine ndax ñu bañ a doon ay way réer kon nag loolu mi ñu koy dénk bu baax a baax nee na it mi ngi rafetlu bu baax a baax seen taxawaay ndax neex ngeen a digal lool jamono bu ci nekk yéen a ngi dak mbégam ci lépp loo xam ne digal na leen ko ngeen cee góorgóorlu kon nag loolu bu leen teggi seen tànk ndax xam ne loolu mooy ngërëm liñ jëm di ko wut bu ñu ko defee Sëriñ Tuubaa danañu dimbale ci gàttal ñoo yërmandeem cant googu yi nga xam ne it ginnaaw bu ñu joxe adde yi tuddee ko ab ñu ngi ko dëgmal xam ngeen ne yéen ñii kat kenn ku ci nekk fa nga nekk di ko def jëmmam jii nga fa wut ndax bu fa nekkoon day ànd ak képp jiitu di leen wan waaye ginnaaw wan aw yoon kon bu ngeen fa nekkee mel ni ne ma nga fa kon nag nee na bu ñu koy def nañu ko defee woon daaw baax na ñu defewaat ko noonu nii waaye nag ànd ceeg li ngeen ci dolli war jii nga xam ne di ngeen a bëgg ñaanal way daw li nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu jiitu ji teñ doon ay woroomi ngërëm yoo xam ne fa ñu tëdd day yitte woon nañ ay ñaan lool ndax aji dem wax nañ ne yitte woon a ñaan lool fa mu nekk te du ko doyal ginnaaw fa ñu ne ku leen yeewoon na leen lu ngeen gën a bëgg ñu ne dellu adduna donte seen caac as jaamu yàlla ñu defaat ko tëddaat kon foofu aw yiw dafa doy kon ko fa tëdd soxla na aw yiw lool ci ay ñaan kuy ñaanal aji dem nag te bëgg mu jot ca dangay fexe ba sell ci sa jëmm def ko te yàlla rek bañ koo booleeg dara waxoon nañ leen ko fii daaw nan ñu ngi leen koy baamulaat bu baax a baax ngërëmul yàlla kenn du ko wut di ko boole ki caaxaan kon nañu góorgóorlu bu baax a a baax a baax ci niñ koy wuti ak niñ koy sàkkoo mooy waral ñu mën a jot ci kon ndigal li daal mooy sëriñ bi nee na xolam sedd na ci nii ngeen di doxale ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax fenn fu ci nekk fu ca waay ne na mu fa nekk tam jub na ko wóor ne jëmam ji la fa teewe kon bu ñuy jàngal aji dem yi nan ko laabal nañ ci yéene nañ ci taxaw nañ ko rafetal ngir ñoom ñu mën jot ca yool ya yàlla jotal leen ci ndax wax na ne aji dem yooyu kat ñaan yooyu ñu leen di ñaanal bu yeggee ci ñoom dañuy ñaanal aji dund yi fi des yàlla sunu borom yàgg leen fi ngir ñi mën a jot ci ñaan yi kon ñaanal leen lu baax a baax la te yaakaar naa ku ci amul wajur am nga ci mbokkum julit wala nga am ci mbokkum taalibe wala nga am ci koo xam ne yéene nga ko kon yaakaar naa loolu bu ñu koy def ñëpp lañ koy def ñëpp ko war a def. kon fardul kifaaya la ci bu ngeen koy def bu ko ñeneen ñi fekk wutit wàcc ngeen leen ko yéen a ngi koy defaaleel buñ jógee ca loola jëm ca cant ga nu xam ne kat ak cant yàlla la ca jiitu mooy sellal te yéene te bañ caa boole lenn loo xam ne bokku ci lépp loo xam ne ab yëngu la te bukkul ci lool yi ñuy defal Serigne Touba nu bañ ko caa dugal ndax am na ñoo xam ne kat liñ bëgg mooy lu yëngu loo xam ne dana am doole lool bu ñëwee na ca lëjji li fekk ña ngi gis loola nag di mën a ànd ak yéen waaye bu ca dëgg rek dese ak diggante ak saabarom ñu daal di rocc bàyyi leen ku dëggal nag dem ku bëri caaxaan tor na bàyyi leen loolu nag yaakaar naa bu ñu ci nekkee mën nañoo jot ci ngërëm yi ni wut sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen nañ wéye ni liggéey boobu bii te doxale ko noonu nii mi ngi leen di jaajëfal ci addi yi nga xam ne indi nañ ko sëriñ bi indi nan ay dàll dàll yoo xam ne dañ ko wut ngir gone yi di ko mën a sol qualité bii ñu wutit xaw naa wute yeneen yi ndax yaakaar naa yii gone gi dana ko mën a sol dem ci àll bi dana ko mën a sol ci kër gi te dana mën a yàgg lool te du ko sonal ci ab diisaay ndax daa am bi ñu ko liggéeyee tax indi nañ ab limite ay kaamil ak ay xasida ak sijaade boobu ak i toogukaay bi di ñaan rek yàlla saa borom defal leen ci tawfiix ju yaatoo yaatoo yaatu ndax euh, Serigne Saliou Mbacké kat daana wax ne addee ju yàlla nangu borom da koy xeeb te ñoom kat jamono bu ne bu ñu indili daan ko xeeb loolu waaw jamono bu ne bu ñu indili daan ko xeeb loolu daana wax na it ne bokk na ci njëriñu addiya Sëriñ Tuubaa nee bokk na ci njëriñu addiya nga ne waxul li addiya jariñ waaye bokk na ci njariñam la wax fu dara niwutoon dana fa def dara lu néewoon mu bëril ko lu bëril mu barkeel ko kon yàlla leen def ci seen addiya ji sellal gi rek a ci am solo ak jub gi ndax bu ngeen booloo nekk benn sëriñ bi moom xolam dana sedd te fu mu nekkit xelam dana dal ndax kat yaakaar naa wala tanaasaxoo fa tafsalu wa tasabrixakum bu ñu ko defee moom moo moom dana kiimaane lool waaw tasiibuhum dayna xulóom sattaayit buñ ko defee dana xorom lool waaye lu mu ci mën di doon nu ànd te yàlla a tax ak jëmi sëriñ Tuubaa te bañ a jaayante kenn ku ci nekk fa nga nekk yëg ne sëriñ bi ngay liggéeyal te sëriñ bi kenn du ko liggéeyal di ko booleeg ay tappale kenn di ko liggéeyal di ko booleeg caaxaan li sëriñ ba jaxate woon ne sëriñ bi kenn mënu koo jaaxal ne day yëri xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam mën ngaa nekk ci mbirum sëñ bi ko sonn ci lool di kër kër yi ah xanaa yàlla la yàlla na la yàlla gindi nga wàññi ko waaye mën ngaa sonn lool te doo jot te la ngay wut ndax moom kat nabaxtukum maan ala kaddin bada lii la an araari dan mu ab bada loolu yaakaar naa kenn ku ci nekk boo xamul muy firi digg nga ñu koy wax lii mu am tëdd nelaw ñu fëgg ko ne ko jógal li nga doon wut lépp am nga ko daa daj li mét doog ca jot kon nag yaakaar naa ngor la ci ñun ñii taalibe kenn ku ci nekk xar sa tànk tubéy ngir xool la gënal sëriñ bi te doon aw yoon nga nekk ca te bañ a doon gone téew bëgg lu baax ndax gone la lislaam bëgg te gone mooy doon produit ëllëg bu mën a amal lislaam njëriñ bu yàqoo ci njëlbeenam mën naa gàllankoor lool waaye bu defaroon nag mën naa jëriñ société bi ay gone ngeen waaye xam ngeen ne da ngeen a bëgg lu baax lu baax ne ku koy wut foog nga wuti ko ci nosin bu baax sëriñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajafal bu baax a baax di ñaan liggéey bi yàlla na ko sëriñ bi nangu yàlla na ko sëriñ bi gërëm loo yàlla na ngeen wér yàlla aaro yàlla ngeen am sutura su màgg a màgg ba kenn ku ci nekk lu kenn man bu ëllëgee lu mbooloo man ba ëllëgee kenn rek man ko ba bu yeexee balaa mbooloo dajale ma dajale ko jox sëriñ kon mi ngi leen di ñaan baax a baax fu waaye toll nga wax amin tafas di gën a bëgg